imaam day ci kàllaam ak sharia dafa am yaari maana am na imaam joo xam ne ilimaani jàkka la am imaam joo xam ne dafa jiite aw jullit moo xam jullit yooyu mu jiite dañuy waa ab dëkk wala dañuy waa am réew wala dañuy ab kuréel lu mu ca mën a doon mën nañ koo tudde imaam su boobaa melokaani yilimaan ci biir julli nag la ci jëkk mooy na doon boroom xam-xam boo xam ne e, mën naa julli la ci jiitu mooy mu doon ku mën a jàng alxuraan àgg na ci sax yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na bu ñuy tànn imaam nañ tànn ko ci dàq jàng alxuraan su fekkee ci ni ñuy jànge alxuraan ñaar ñi ñuy gam nee na tànn leen ka nga mën na alxuraan ba noppi dégg sunna nag boole ja ndax kooku mooy xam ni ñuy jullee mooy mën a dëppoo ak sunna noonu la ko toppee ba àgg ci ne su fekkee ne àgg na ci ñu bokkale yooyu yépp nu ko bokk doon eh, ni ñuy jànge alxuraan bokk tolloo xam-xam ci sunna nee na bu boobaa xool leen ki nga xam ne moo ca jëkk dugg ci lislaam su fekkee ñoom ñaar ay lañ su fekkee nag ñoo duggandoo ci lislaam su boobaa xool leen ko ca ëpp ay at maanaam mooy ki ci gën a yàgg ci lislaam eh, su boobaa ñu jiital ko li ko waral ma waxe ko noonu mooy riwaaye bay wax ne akbaruhum sinnan dafa am beneen riwaaye boo xam ne dafa ne aqdamuhum silman su ko defee mooy ko jëkk ci lislaam bale mooy ko ca gën a mage ci wàllu ay at ala kulli xaal yooyu yépp ay considération la maanaam ay itibaaraat yoo xam ne des na ci sukkandik ngir tànn imaam kon xam-xam ba daal mënta ñàkk ci mën a jàng alxuraan bu wér ak am xam-xam boo xam ne lu sikk ci julli ga mu mën koo defar am xam-xam boo xam ne dana mën a julli ci sunna julli boo xam ne dara dugg ci ci loo xam ne waru caa dugg xeeti bidda ak ay xeeti caaxaan ak ay xaraka bu ak dara xeet yi nga xam nit ñi dañ koy dugal ci seen julli wala bu ñuy bëgg a julli wala buñ ñu jullee ba sëlmal yooyu yépp mu mucc ca su loolu jàllee nag jëmm ji ci boppam mu doon koo xam ne ku maandu la ci wàllu ay cër kenn xamalu ko bàkkaar bu mag boo xam ne da koo saxoo di ko def kenn xamalu ko kon yooyu su fekkee ne daje nañ kooka moom mooy doon imaam joo xam ne ma manees na koo tànn mu doon ilimaani jàkka joo xam ne yokk kii mooy imaamu raatib ba jàkka ji su fekkee da caa bëgg a dolli nag nekk ilimaani ajjuma faaw mu doon borom xam-xam boo xam ne mën naa xutba nag mën a wax nit ñi loo xam ne lu leen amal njëriñ la loolu faaw ñu dolli ko ci ah amaa imaam ju mag ja nag nga xam mooy imaam ji jiite am réew te ba addunay bax xana xam ne yonent baa fa nekkon ak sahaba am ku massa jite rew mu yaay doon ilimani jàkka itam yoy lañ daan boole kon melokan melokaani ilimaan yooyu ñi wax mom da wara jitu ba agal mu mel nona nek borom xam xam bu lislaam bu mën jàng alquran mo ci jitu bu fekkee ilimaani jullit yi la bu noppee la ci wara teggu nak moy mooy ak jup ak mën sam ak am fulla ak fayda ak njàmbaar goo xam ne dana mën a aar kaaraangeeg lislaam ba du doyee di ci kanam benn noonub lislaam àgg ci ak maanduteem mu appliqué la lislaam santaane donte day dal sax ci kawam na ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam waxe woon ne Faatuma doomi Muhammad bu sàccoon ma dagg loxoom alayhi salaatu kon loolu euh, lañ bëgg ci yilimaan yoo xam ne mooy yilimaan ci mag bi nga xam ne daa boole nekk yilimaan yi jàkka ja ba noppi ma wala mbooloo ma wala kuréel ba wala sax dëkk ba